waa dund ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay ñu ngi fii ci euh, hôtel de ville bu Nioro toog ak njiitu bokk moomeel gi di monsieur Abdoulaye Ba moo woote woon ndaje mu am solo euh, bëggoon nañu ànd ak moom itam ci kàddu yi mu leeral lan moo doon taxawaayu ndaje mi monsieur le maire asalaamaaleykum. aleykum salaam maa ngi am mbégte di leen dalal di waxtaan ak yéen ci benn. financement bu bees bu mairie bi am ndax réeréewul mbir ne alhamdulilah doli sante yalla depuis 3 ans Nioro dafa net en chantier ñi amone ay tali yu bees ñi ci dox di dox ba amal yenen tali yu quartier surtout ak quartier tali entretien comme euh, lettre Ben projet bu FERA FERA le fond d'entretien routier autonome biñ Binde, nous sommes aussi mbind mi ooñu ñu dem fecc leen dakar bañ signé ak ñoom convention convention bi 25 millions 350 000. ñaar fukki millions ak ak ñaar 25 millions 350 000. loo xam ne uniquement day jëm ci entretien route yi nañu am ngeen droit jël ci cinquante trois manœuvres maanaam cinquante manœuvres ak trois superviseurs lii fan yii yëpp ci lañ ne woon ba jël nañ tey cinquante manœuvres yi ak trois superviseurs yi. aussi ñu ne ñuy biir vingt cinq millions yooyu danañu ci jox trois millions yooyu yoo xam ne dañ ci jënd matériel bi ñuy balayee muy brouette yi ak râteau yi lépp ak tënu yi nga xam ne moom la mën a di sol tey nag def nañ réunion tey ak ñoom ñoom ñëpp signé nañ seen contrat incha allah suba lañuy demare démarrer bi pour di bale mbedd ñooro yi ci tali yu màggat yi ak tali yu bees yëpp.

dañ lay fay pour nga defar fi dëkk loolu sa sas la sas la ndax bu dul dara sax bu ñu oote woon ne ni ñëpp nañ ñëpp ñëw duñ fay kenn nit ñi dañ dañu war a ñëw bon nag ñiy félicité ñi jël te xam ne li li ñeen jëlee am na ñoo xam ne soxla nañ ca mënuñ am ñu vraiment ñeen di ñaax ñuy ñëw heure di wàcc heure chaque jour dinañ commencé 9 heures ba 14 heures. ba quatre non ba neuf heures ba treize heures muy quatre heures de temps par jour lu daal mooy xoon tey cinquante personnes yooyu ci ngeen yem wala da ngeen cinquante yi fi la ñuy yem pour le moment léegi nag am na ñu ñoo xam ne peut être bu ñëw dañ leen remplacer ndax tey cinquante bi am na trois yoo xam nañ dañuy bàyyi parce que li ñu wax ñoom mënuñ def loolu te loolu mooy yoon dañ leen expliquer contrat de travail bi li ci soxla ak li li yoon doon ci cinquante personnes yëpp nag tey jël nañ leen incha allah weer wu dee dinañ leen fa say fii ba janvier deux mille vingt et un cinquante yooyu na naka nga leen recruter maanaam da ngaa dajale jël wala par quartier la. dañ jël d' abord dañ jël les ASC ñu ne ASC yi su nekk ñoro ASC yi dafa bëri ASC bu nekk yooyu nañu au moins kenn personne ñu jël les conseil de quartier nous leen lu néew néew deux personnes mais aussi mairie bi aussi dafa am service du personnel am na ñoo xam ne yàgg dañ di ñëw ci mairie bi di jàmbat liggéey di ut ay manœuvre aussi ñu boole leen jël leen muy 53 personnes li ASC les conseils li conseil de travail, les joxe ak li mairie bi joxe loolu jël muy 53 personnes 50 manœuvres et 3 superviseurs. du lundi au vendredi altine ba àjjuma la ñu la noppalu ci samedi ak dimanche 9h la ba 13h. Euh, ñu ngi lay jaajëfal sa kàddu gu mujj. encore une fois vraiment di di sant yàlla di xam ne lii aussi xéwal la ndam la.